voilà ñëw naa dégg nga. waaw ñu ngi noonu waxal deux heures. ñu euh, ngi euh, ñu ngi bàyyi xel euh, jamono ji ni kon ni ngeen ko gisee encore une fois. micro yi na jaaraan yow. dugal ko woo la. merci. boo dëgër ko. Gracias. kon nag ki ci topp ñu deful direct signalé euh, euh, li nga xam ne moo di état bu parrainage parce que moom euh, li mu indi woon moom mooy parrainage parlementaire treize députés yi xam ne indi na ko kile di doyen Habib si xam naa ne nga ak léegi-léegi ki nga xam ne moo di mandataire am dina génn jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi nga xam ne ñi ngi fii ngir rek wax ak Sénégal yi nga xam ni ñu ngi ñuy bàyyi xel mi pour le moment jàpp leen ni li nga xam ni moom moo di contrôle yi ñeel euh, ngoon gi kon euh, daa ji ne rek euh, door ki nga xam ni moo di Habib Sy nag tayoo tey kii di Habib Sy ak ki nga xam ni moom moo di Karim Maysa Wade ñoom ñoo kon daal di jàll gun te ñoom ñaar ñëpp kenn ku ci nekk parrainage parlementaire nga daal di indi muy euh, ay député euh, toll ci treize députés yoo xam ni ñoom euh, indi nañu ko file ci assemblée nationale ba tax daaji nañuy valider jamono gi ni lu ñeel nag ki nga xam ni moom moo di Ibrahima Sall moom kon dañu ko daal di rëkkale maa ngi ci ñëwaat léegi léegi ci anam gu gën yaatu kon si ngoonu tey si ñu ngi xaarandi ki leen Ibrahima El Hadj dañ ko si moo ci toppoon euh, validé na avec euh, ses treize députés produits euh, ki nga xam ni moom moo di élagement li Malick Gakou kon jamono ji moo ci topp moom la ñu war a càmbar li nga xam ni moom moo di dossier bu ca jàllee ñu topp topp ci kii la di Papa Momar Ngom Thione Niang nekk cinquante cinquième position kii la di Aly Ngouille Ndiaye itam war ci topp docteur Serigne Gueye Diop war ci topp Assane Ka Mamadou Diop Decroix Euh, fin de liste pour tey jii nii ki la di Souleymane Ndéné Ndiaye moom moo ko daadi di war a tëj kon euh, ngoonu tey si euh, nii la war a demee en attendant ñu xaar la mandataire ki nga xam ni moom moo di Habib Sy bi nga xam ni kon jàll na parrainage avec treize députés yi nga xam ne ñoo ko daal di parrainé pour le moment fii la ci diwaanu conseil constitutionnel en tout cas ki di El Hadj Ibrahima Sall de deme de deme à la république euh, moom nag dañ ko daal di dañ ko daal di invalider euh, lu en tout cas li mu am ci euh, nombre de doublons dafa kon daal di daal di bari xëy na ki nga xam ne mooy tàmm son mandataire dina ñëw génn jàkkaarloo ak ñi nga xam ni ñoom ñoo di taskatu xibaar yi ngir mën wax ci loolu mais li nga xam ni seetlu nañu ko bon tey ji sax xaw na tane parce que ñaari mandataire rek la ñu gisagul en tout cas ci suba ak léegi parce que ñeneen ñi jot nañu ñëw jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi mais euh, ñi nga bu fekkee ni journée demb bi nag gis nañu mandataire yu bari yoo xam ne dañoo daal di daw euh, ñëwuñu jàkkaarloo ak taskatu xibaar yi loole nag demb gars yi kaas nañ ko baax a baax ba tax na tey jii nii euh, yaakaar naa ni am nañu cas yi wàññeeku na bu baax a baax kon en attendant ñu xaar ki nga xam ni moom moo di mandataire doyen Habib Sy ki lee di El Hadj Malick Gakou moom moo nekk ñuy traité li nga xam ni moom moo di son dossier filé ci biir diwaanu conseil constitutionnel il fait exactement heure bi ñu waxee ak yéen heures dix huit minutes moom moo daal di jot kon fii la ci diwaanu waa conseil constitutionnel ñu continuer ak rek voilà ñu ngi taxaw ak suñu ak suñu. dafa am voilà am na mandataire bu ñëw kon ñu jëli ko am na jaaral bi kese nga ñëw Fatima bàyyil micro Again, huh? C'est je m'appelle Ibrahima Diakhaté. Je suis le mandataire du candidat ministre d'État, M. Habib Sy. Ah, Donc, euh, nous venons de sortir euh, de la salle de vérification du contrôle des parrainages. Donc, euh, tout s'est très bien passé. Donc, euh, notre parrainage a été validé par la commission de vérification et de contrôle des parrainages. Voilà, alors évidemment, mhm. je pense comme vous le savez tous, et notre candidat a été parrainé par les députés du PASTEF. Mhm. Ça, tout le monde le sait. Et c'est l'occasion vraiment de rendre un grand hommage à M. Ousmane Sonko et à toute la direction du PASTEF pour la confiance qu'ils ont portée à notre candidat M. Abibsi. Et comme vous le savez, Nous, nous l'accompagnons. Et comme l'avait dit le président Abibsi, évidemment, nous prions de tout cœur pour que sa candidature soit validée. Parce que juridiquement, rien ne s'y oppose. Donc c'est une prière du fond du cœur que nous faisons. Parce que notre candidat, c'est M. Ousmane Sonko. Je pense que et, eh, si nous sommes à côté de lui, c'est parce que c'est un homme de très grande valeur. Nous, nous l'avons côtoyé, nous le connaissons. Donc nous sommes avec lui et évidemment, comme l'avait dit également notre candidat, M. Abibsi, si sa candidature, la candidature de M. Ousmane Sonko est acceptée, il va retirer naturellement sa candidature. Donc vraiment, c'est vraiment ce que nous tenons à dire. Et encore une fois, nous prions, parce que notre souhait le plus profond, c'est que la candidature de M. Ousmane Sonko soit acceptée. Voilà. Salaamaaleykum. Ibrahima Diakhaté mandataire Habib Sy candidat à l'élection présidentielle mhm. donc comme ni ngeen ko xamee euh, monsieur Habib Sy ay député Pastef ñoo ko parrainé et loolu vraiment dañ ciy profito pour remercier leen d'abord tout la direction du Pastef parce que moom ni mu ko waxee ndeysaan bi que Ousmane proposé comme candidat ñëpp nangu ñëpp ko nangul donc ñu ngi leen ñu ngi gërëm waa Pastef yëpp eh, particulièrement nag monsieur Ousmane Sonko pour kóolite gi mu jox sunu président ministre d'État Habib Sy waaw ñun nag dañu ñaan yàlla waaw yàlla dañu ñaan yàlla moom candidature moom mu jàll parce que Ousmane Sonko mooy sunu candidat waaw ñun xam nañu ko vraiment c'est un homme de très grande valeur morale et intellectuelle et li ñaan yàlla wax dëgg yàlla mooy moom mu jàll parce que bu buñ ko tënkee ci yoon rek ci droit rek vraiment ci yoon bu ñu doxalee yoon candidature am dafa war a jàll waaw ñun loolu la ñuy ñaan yàlla mu jàll parce que il le mérite il s'est battu des années pour être candidat à la présidentielle te bu yàlla defee mu jàll incha allah comme ni ko ministre d'État Habib si waxee moom day désister wu au profit de monsieur Ousmane Sonko loolu daal laa amoon lu may wax di leen gërëm nag waaw ngeen ñaanal ñu yàlla candidature Ousmane Sonko mu jàll incha allah merci beaucoup. jërëjëf euh, c'est pour qui Sunugal 24.